tey jii nii dañu ñëw fii nekk délégation parti démocratique sénégalais président Abdoulaye Wade yabal nu ñu ñëw indi ziara ak euh, ndokkeelam moom ak euh, sunu candidat Karim Wade bu ñu ñëwee nag fii ci Kaolack ak délégation bi nu mu mën a toll dañoo am bunt ci Kaolack ndax Cheikh Mahdi bi nekk nii taxaw ci sunu wet nekk euh, rakk ci xalifa bi nekk na ci militant yu jëkk ci parti démocratique sénégalais ànd ak ñu nekk un militant nekk un responsable lu ne mu defal ko parti bi fii kon bu nu ñëwee ci Kaolack kon dañ fi am sunu bunt ci kër gi moom la ñu àndal kon mu ñëw ci xalifa bi ak responsable yi nga xam ne si ñoo nekk ci département bi ak ci commune u Kaolack yëpp ñu ñëw ci xalifa bi indil ko ndokkeel bi nga xam ne si moom la ko président Abdoulaye Wade di defal ndokkeel bi ko Karim di defal ci bis bi nga xam ne si seen maam da ko da koo samp diko def di ci euh, célébrer euh, mawlidu nabi sallalahu alayhi wa sallam ñu wax ko diko taxawayam ci rew bi xamnañ ko taxawayam ci Sénégal xamnañ ko événement yi fi aw yépp yëkkati na ci cadeau def na ci ay ñaanam te yalla def na jamm ci Sénégal ñu waxtaan nañu ak mom itam ci suñu mbir muy mbiru politique bi ndax biñuy dem élection euh, législative dañ ñëw ci mom sàkku ci ñaan bi ñu paree ñu ñëwaat ci moom waxoon ko itam ni ko dañu bëgg mu ñaanal ñu sunu candidat Karim Meïssa Wade lépp lu tegu ci kawam teggeeku ba mu mën a ñëw wax nañ ko ni itam loolu am nañ ci taw feex incha allahu rabbi mu yokk ñu ñaanal ba Karim ñëw ak jàmm ñu teeru ko teeru bu mucc ayib dem élection gagné nee ñu nag moom bi mu biñ ko nee délégation PDS dana ñëw dafa dafa defe noonu sax Karim a koy jiite loolu kon nekk na ci ñun yort bu rafet ak joxañ boo xam ne sii xam nañu sunu candidat dina ñëw ak jàmm ci barki bis bi ci barki place bi ñu taxaw tey ñu ngi fiy ñaan yàlla defal nu loolu lépp te lépp di jàmm ci Sénégal jërëjëf.